ليتك دوما قريب يا حبيب ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب asalaamaaleykum mbokki internet Dental TV c'est le bon bi ak ki nga xamante ni moo di Caporal Info ñoo ngi amaat mbégte contentement nee naa leen gis ngeen time bi nga xamante ni mooy Boy Cheikh team di ay ndaw yoo xamante ne ay ndaw yu ambition lañ nekk fii nga xamante ni moo di Tivaouane nekk ci commune Tivaouane Peulh ñàgg doon ay yoo xamante ni tamit ay référence lañ ku ne nag gis na li ñu defoon daaw te yàlla may ñu ñu fekkee ren dañuy ñaan yàlla na saa borom def ñu koy fekkee déwén yu bëree bëree bëree bëri ndéem ñoo ngi ci sawru Ramadan li may wax saa su ne rek euh, boo lekkee ba suur bul wétti bul denc bul tuur boo may nit mu naan bur yàlla tàbbal la ji naan min naari kaw sare di naan mooy teeru Moustapha Fala Yaman Boy Thier maa ngi lay ziar. waaw delloo ziar wér. macha allah mbokki internet yi moo ngi noonu muy Boy Thier nekk artiste boo xamante ne tamit euh, ku ñëpp di bàyyi xel la muy jeune talent Boy Thier dama lay bàyyi nga nuyoog suñu mbokki internet yi nuyoog waa àdduna nuyoog waa diaspora bi. waaw Assalamualaikum Senegal, assalamualaikum tool pël maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn njaago julit ak chrétien yëpp bayuma kenn di nuyu ñi fi tew di ñom eh, sama grand kona ñom mordin hmm. sama grand bay bay job bay job def déplacement bañ bay seen nité yëpp nuyu di leen xaru ci machallah allah mu ngi noonu tay balama bala ma jall ci dara damay saluer ñi nga andal ndax gis na seen taxaway and nañ ci dal and nañ ci and bu rafet waye yow it balaa ñoo jall ci dara ma lay bàyyi rek ndem artiste nga tamit te ñong ci sow ramadan nga laal ñu suñu kilifa diine yi nga xamantene fi diine bi yegg tay ci l'islam fi senegal ñoo daj lu ne bu mu yegg fi tay après nak ñu jall nak ci suñu waxtan ay ci li ñu ñaani pass ndax ci gal ga tiiri passu gal gi ah. yow ti man tiijaan laa yow <laughs> tiijaan nga dundal nga diine ji ku sey di mbay di sa waay nga dénk koy cummikaay loo di ragal ak tiitoo ah. yow ak tiit saaban yaa lay xeex saaban yaa lay xeex dundal nga moytu ma jaani ñangoor dangar ba day gën a foo watul ma maam xalifa mbay su la laalee dañu lay suuli dañu lay suul dundal nga diine ji góor gi ndar ndar la gi ndar ndar la leen góor gi ndar la ani leeram ga joli na ga jolli na ga jolli na leeram ga jolli na waaw leer ga jolli na leer ga jolli na woo leer ga jolli na yónneen ba ne Aïcha la faa toog suñu xalifa mbay ne yaa astu la faa toog gone faa toog dundal nga diine di daan nga góor gi ndar ndar la damay bañ damay damay damay bañ ci ginnaaw fekk ci macha allah mbokki internet yi moo ngi nii defe naa ne dégg ngeen voix bi à rapport euh, si voix am bu yuuxoo ñëpp bëgg mais Boy Thier gis nañ li ngeen daj ci li ngeen daj ci ndogu yi defe naa ne nag euh, daaw daaw defe naa ne budget bi xawoon na métti ak ren par rapport li ngeen def daaw ak ren nan nga koy nan ñu ngi koy xaymalee. waaw comme ni nga ko waxee rek métti na méttiwul. Hmm. ndaxte tey jii nii ñun équipe lañ. te gis nga artiste amul lu lu muy àndal. Mm-hmm. ñu may àndal nii lépp lu ma fu ma tool wala lépp lu ma am. ñoom ñoo ma fa teg. parce que bu jug jotee. Mm-hmm. ñoom ñoo may fekk ma tëdd ñu yéema. Mm-hmm. jiw ñu dem da nga war a dem démarche dañuy def ndogu. te te pourtant defaluñ ko kenn. man maa tax ñu koy def. kon aw ma seen fay. démarche yi nag dañuy dugg ci autorité yi. bonne ñu siy jàpp. ku ci mel ni maa ngi gërëm. Euh, jéena ba transitaire ndeysaan mom tamit japp na ci mm. def na ci xaalis bu bari bari mm. amu fayam mm. di sant ñep di gërëm ñep amu fayu kenn di tamit gërëm tim bi ndax ñom son nañ dal son nañ ci affaire yi gàcce ngaalaam mais man dama la bëgg la yow kan mo la dé ni ngeen duggé ci dispensaire bi kan mo la ko dé wala da tomber rek non dañ ko waajoon dañ ko wajj parce que dañu ne dañuy dugg si jaakay lu am solo dugg si hôpital yi parce que biir hôpital yi xeyna am nañu fa nek amul luñ dogoo wala seen bokk mbokk bàyyi leen foofu noonu mm-hmm. wala ku am ku fa nekk moom kese mm-hmm. ñu ne pourquoi pas duñ dugg si jumaa duñ dugg si hôpital bi dugg si jàkka yi ndaxte gis nga weeru koor mm-hmm. loo si def rek yàlla dala koy fulal moo tax boo xoolee daaw ak ren di nga xam ne affaire màgg na waaw te incha allah day gën a màgg te ci loolu noonu laa la wax ma ne wu daaw la woon ci ñaata ngeen tolloon ci daaw ci li ngeen dépensé wu daaw ba ñu def deux cent mille lañ lañ defoon macha allah ren yàlla jàppale ñu ba ñu am 400000. kon xam nga mu ngi màgg. bonne volonté yi ñëpp jàpp nañ si. aussi day loolu tamit dañuy dellu sant yàlla rek. mention spéciale ci bonne volonté yi nga xamante ne ñoo nekk ci zone bi te jàppale ndaw ñi nga xamante ne nee naa leen lu ñu def rek euh, jar na ko ndax ku ne gis na seen taxawaay ci ni ñuy àndee ak ni ñu boolawee loolu rek c'est à saluer waaye boo ci ar nag fi mu toll nii defe naa ni waxtu bi lu ñu def bëriwul dama lay bàyyi nga gërëm ñëpp. sant ñëpp bu ko defee nag ñu ñu maaye nag maa ngi ziara sama grand yi nga xamante ne ñoo toog le grand Baye Diop ak suñu grand Mor président ak suñu mbër mi nga xamante ne moo di Kona le grand Kona maa ngi lay bëggee acca dama lay bàyyi nga ziar tamit nga waat gaa yëpp ziar ñëpp ñu def ko benn tàggatoo nga woyalaat ma nag suñu mag ñu baax ñi waaw damay jiital ci sant bi tim bi mm. comme ni ma la ko waxee rek mm. di sant aussi tamit sama ndax ndax sonal nañ ko torop fépp fu ñuy dem dañuy ñëw fëgg ko dañuy toog di waxtaan sax amul dafa nangoo wàccee boppam mm. di toog ak ñun xam nga lépp lu ñuy def mu ñu ciy conseil maa ngi gërëm suñu maire ko ñi mm. ndax ñoom aussi tam bàyyi nañ seen yitte yëpp mm. ñoo jàpp si waañ bi jàpp si liggéey bi aw ma seen fay di gërëm ñëpp di gërëm waa koñ bi yëpp cet ba cet ma kenn macha allah su ma limee damay juum macha allah di gërëm waa tim bi di leen gërëmaat di leen gërëmaat di leen gërëmaat di leen gërëmaat waa tim bi waaw ndax <laughs> nga xam nga aw ma seen fay. gërëm nga leen fukk ak juróom juróom ñaari ma seen fay ndax ndax li ma doon rek wala li ma mel rek la macha kon fu ma toog dama leen di sant dama leen di gërëm macha allah aw ma seen fay di gërëm waa waa yëgoo décoration aussi tamit mm. jàpp nañ si affaire yi mm. xam nga di leen di gërëm mm. di leen sant aussi macha allah acca mu ngi waaye nag sama sama sama mag ju baax ji di Sista Gamba Dieng defe naa ne mooy salat mooy président staff mooy président staff Sista Gamba maa ngi la siyaar yow it nga deux ci ay kàddu comme wax na lépp sax jërëgoon sax ñuy wax waaye tamit dañuy nuyu képp koo xamante ne rek yaa ngi fi teew mm-hmm. ak suñu mbokk internet di ñu leen di jaajëfee bu baax a baax booy ceer moom xale bu neex gunge la comme ni ñu ko waxee rek bañ ci jàppee ba léegi mi ngi góorgóorlu te yaakaar naa li ci kanam raw li bët xam naa après koor gi moom dina am yenn yu bees yu ñëw incha allah yu bari yoo xamante ne CA dañuy xaar rek yéen kon moo ngi noonu mbokk internet yi waaye tamit maa ngi toog ak ki nga xamante ne dafa naa ne mooy mooy président timbi jori maa ngi lay delloo siyaar bu ayca wax ni tur bi a bi Ibrahima Khalil laa ayca sànni ci ay kàddu waaw xanaa kontaan naa rek amaat mbégte bu baax a baax ndax mm. lii moo nekkoon mbir mi gis nañ ñi si ñëpp jàppee mm. surtout waa Timbi mm. te ñun li ñu def nii defaluñ ko kenn suñu bopp lañ ko defal quoi xale yi sonn nañ ci bu baax a baax kon ñoom laay delluwaat ngërëm jàpp nañ ci bu baax Timbi bàyyiwuma kenn góor jigéen mag ndaw gërëm tamit suñu garaay ñoom tamit jàpp nañ ci bu baax buur moom mënu suñu wet des fois dañ koy fëgg guddi ñëw di ko déranger toujours mu ciy jàpp buur mention spéciale sant nañ na gërëm nañ la bu baax a baax gërëm tamit jey na ba jàpp na ci bu baax a baax transitaire bi gërëm nañ ko bu baax a baax mais waatu mbir moom bàyyiwuma kenn jigéen ñi góor ñi surtout nag mention spéciale Penda Penda Penda Touré ak euh, Penda Thiam fu mu ci tim bi la bokk. ci waaw boo boo gërëmee Penda Thiam ak yow bu gërëmoo umme ak Ndeye Fatou ak kii ba duñu mer. non ñoom ñeneen dinañ comprendre. Ah. Penda Thiam ak Yacine jàpp nañ ci bu baax moo moo ngi noonu mbokki internet bi muy président tim bi ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax nee naa leen wéy leen di abonné si suñu site yi nga xamante ne saa su ne ñoo ngi leen di indil ay faits divers di leen indil ay actualité kon dee leen abone te te te te abonné daal macha allah moo ngi noonu is Isco Baye Darou waa Caporal info ak ki nga xamante ne mooy seela Sela Bon TV mention spéciale à yéen kon nag euh, dañuy jox euh, ki nga xamante ne mooy Boy Cheikh mu wayalaat ñu rek suñu mag ñu baax ñi ñu def ko benn tàggatoo jógandoo ko ah dégg nga le grand Kona nee na Baye Fall démb la woon guddi maam Sera Fall de. waaw balaa may woy tuuti di si Baye si Mouride. Ah. dama bëggoon a gi ñu gërëm borom kër gi. waaw muy Babacar Seye. yaakaar naa imaam Babacar Seye imaam maa ngi lay ziar imaam. xam nga sonn moom aussi tamit sonn nañ ko trop boo xoolee kër gi jibi soo ba léegi va et vient mm. affaire yooyu noonu xam nga mm. sonn nañ ko trop si këram bi mm. te moom aussi tamit jàpp na si programme bi jël na xaalisam def si moom homme social def nañu waxtaan xam nga ba ñëpp bëgg moom tam aw ma fayam maa ngi koy gërëm macha allah boo defee ñu daal di acca acca ñu juub te fas yéene liggéeyal Serigne ku am yàlla am Ahmadu Bamba lañu am gisuñu kenn ku dul moom demuñu fenn gëmuñu kenn xamuñu kenn ku dul moom ñu jur te fas yéene liggéeyal Serigne Touba waaw yàlla gëm nga leen liggéeyal Serigne Touba sëriñ Saliou mooy baayu sëñ Fallou borom mu am mu am bu du am dara du am waaw waaw sëriñ Touba yàlla am lene sëriñ ndal borom lagal borom dokaar ليس لجفال الغلبة وعوال سرين توبا وعمل سرين توبا نجوب تفاسيلي نجيم سرين توبا وعم يالا عم يولي نجيم سرين توبا mbokki taalibe ayta gaay nee na des na gaay nee na des na ayta alhamdulillahi xaaja cheikhu rabba ayta xayrul wujudillah ji ablaawu mawla ayta maalal xilaafata yooy yooy yooy yooy od maalal xilaafata yooy yooy yooy yooy od maalal xilaafata دينا لا لا فلا لا فلا لا سبحان مدينة لا لا كما يبقى يا رسول الله جنت جامي كن ور جلل كر يوم الخيام سيدنا محمد لكل ليل بامو دوخ بامو ينا daw ci darajey Seyduna Muhammad lañ ko bindee ana ñu bëgg yaa rasulallaahi ana ñu bëgg yaa rasulallaahi moom la yàlla xool ba mu yàgg ne ko wa innaka ala xuluqin azim Cheikh Sadwa bi nee na wallahi ma fil ardi wa samaai ufwan li ahmada min al asiyaaji waduudoo wa dakkal kawu bil mustawaa mu ne war ci diggante asamaan ak suuf jigéen dootul sukkujur ku mel yaa rasulallah moo ngi noonu di di dig daje ci yeneen i ndogu ak yeneen i maam Cerno borom daaro gàcce nga la ma waaw borom ma waaw borom daaro maam Cerno nga borom gaa gàcce nga laama waaw gàcce nga laama waaw waaw salaamaaleykum gars yi ñu ngi ziar bëggee kontaan continuer donc man la Kona président euh, centre du socio culturel cité Apix borom c'est le bon c'est borom c'est le bon TV en même temps Euh, tay ñu ñëw fi ak euh, caporal info ko euh, grand mort président Jean-Paul la bokk ko aussi artiste bu mag bi donc di suñu frère mom tamit di suñu koo xamante dañ koy contané di koy bëggee muy Thier donc mu am tay ndogu solidarité mom solo bu mu don te bu mu don def tay fi ci Tivaouane Peulh ci goxam té damay faral di wax ni nit ki boko bëggé xam da ngay dem ba fa mu dëkk donc nit baxna na ndax mbokk ya ko wax kon donc mom Thier tay wane na ni artiste la wane na ni wane na ni star la wan wane na ni ki nga xamante ni fa tabaar fa kàll la leadership am kon donc Mame Thierre fi nga teg sa tànk bu ko teggi li nga jàppoon ba am lii bu ko bàyyee ti jig na la ndax tey fii képp ku fi ñëw di sa nawle tey dalay wekk képp ku fi ñëw ñëw di sa nawle dina la kontaanee ndax man am naa mbégte ak fierté bu mag di xool jeunesse jeunesse bi tey nekk derrière toi et c'était pas c'est pas évident mu nekk loo xamante ni tey c'est à magnifier parce que tey dafa jafe tey benn jeune ay jeunes yu retrouver wu autour de l' essentiel di jàppale benn nit pour mu avancer ci aar bi mu nekk et c' est lu lu jafe la donc kon loo jàppoon ñi la wër na ko gën a dolli parce que tey bëgg bëri na say moroom ñu la ëpp talent sax peut-être mais mënuñu am tey mobilisation bi nga am derrière toi c' est pas évident donc na nga jàpp na nga nekk muus walla nga nekk ginaar ci seen wet bu gis mu lol lool lool gis lu len naqari bu mus def aussi lu len di tuutal parce que vraiment solidarité bi nga solidarité bi nga wote ni tay vraiment solidarité bi euh, amna solo bu tegg sa tank limay wax rek moy euh, montre-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel peuple tu seras tay ay euh, rew mënul mënul mag màgg mukk te mënut ta compter ci ay ndawam te ndaw yi tay man dañ ma jox une sentiment de fierté bo xamanteni tay c'est tellement immense parce que tay li ñu def c'est pas évident dajala ay d'ailleurs dajala ay teranga dugg ci hospice yi dugg ci yi xam nga hôpital yi di nit ñi idée bobu dafa original extraordinaire la man dama leen di ñaanal yalla na leen yalla defal à partir de là m'a ngi bok ci team à partir de là m'a ngi m'a ngi derrière li ngeen di parce que man j'œuvre dans le bon sens Moi, je suis un acteur culturel je suis un lutteur mais je suis un opérateur économique je gère beaucoup de choses tay jeunesse su APEX yëpp xam nañ kan mooy Kona jeunesse su Diamaguène banlieue ba Pikine tey dañu am team bu international muy Salabon sa la bëggee tey ñu teg ba structure boo xam ne seen internet la mu tudd Salabon TV tey mu ngi judd barki Demba Ndiaye mais gis nañ sénégalais yi nañ ko bëggee parce que tey ñun ay patriotes lañ. dañuy œuvre chaque jour rek ci ñu jëmale kanam askan wi ñu di dindi benn divergence dañuy teer tous les divergences teer bépp euh, lu ñu indil maanaam lu ñuy indil di ñu tàqale ñu œuvre dans la dans la généralité donc man loolu laay œuvre euh, euh, je ne suis pas parfait mais je, je, mais je cherche d'être parfait quoi Mais essayer di di nekk ku baax ñun ñun ñëpp la war yàlla moo ne da ngeen di jéem il faut tendre vers la perfection kon donc boo ceeb maa ngi lay kontaanee di la encourager di la wax ni tamit yéen ñu fi toog yëpp doo lay jën ndox la doo lay saxaar raay na ngeen abonné si Dental TV abonné si Caporal Info mais ngeen kabo abonné aussi si C'est TV nga xam ne tey lépp lu ngeen di def dañ koy fësal foofu parce que nee naa leen tey nit ki da ngay fexe nga autonome autonome mooy lan say activité li nga koy defee nga li nga koy defee nga moom ko te site yi ma tudd tey yéen yéen a ko moom parce que ñi ko moom doomu Tivaouane Peulh lañ doomu cité Apix lañ doomu Tivaouane Apix ak Tivaouane c'est la même chose ñun tey couleur Tivaouane Peulh la suñu génnee bëre ji wala fu ñu mënti dem dañ naan Kona bu Tivaouane Peulh Apix donc ñun couleur boobu tey képp koo jub yëkkati benn affaire dëkk ci localité bii war mu dëkk ci commune de Tivaouane Peulh ñàgg wala dans la banlieue ñun dañ lay jàppale kon booy jàpp dañ koy jàppale de pour de bon te damay bepu, bonne volonté bu ci localité bi commune de Tivaouane vous nous nañu jàppale boy, bi nañu timbi team nañu parce que vous dégg bi il est extraordinaire Vous, le koy le bu avez jàppee benn parce qu'il est extraordinaire il chante très bien ñun artistes lañ gis nañ ne way artiste mais c'est tellement difficile et il est présentable parce qu'il est tellement beau donc non si si il est tellement beau machallah kon donc té lolu dafa bax tay artiste dafa wara charismatique da nga wara correct da nga wara am ben élégance day tax nit ñi dañ lay bégué même lu mu woy woy sa comportement dafa am solo té il a un très bon comportement kon donc man kay ñaanal sama xaalixina donc machallah fa tabarakallah dama lay wax ni une très bonne suite la lay ñaanal bu reuy bu bew bu bu gis sa bop chaque jour rek nga nga wacce sa bop nga nga humble nga nek ko xamantene da ngay souffler si la la yàlla di yëkkatee mais heure boo yëgee sa bopp da ngay ñàkk ñu am fayda boo yëgee sa bopp rek ñàkk ñu am fayda kon da ngay wàcc comme ni koy defee nii bul ko teggi wallaahi ñun dinañ la jàppale te ñii fi nekk yëpp tey buñ la gën a gore dinañ la jàppale te buñ la jàppalee di nga egg fi nga bëgg a jëm léegi nag man autorité yi laay woo parce que mënuñu am ay jeunes yu nekk si biir si si commune de Tivaouane Peulh Niaga ku mel ni booy ah, bi ma ko dégloo dama yuuxu fii damaa daanu fii ma toog parce que mosuma woon xam na talent yu mel nii te xam naa ne am une dizaine ou beneen de centaines de jeunes yu am talent bi am si d'autres facettes mun na bañ a sur la culture seulement mun na bañ a doon si way mais mun na ba doon ci football mun na doon ci leneen mais nañu dooleel qualité yi nga xam ne ñoo nekk suñu localité di leen pousser yéen vous êtes un exemple si loolu c'était pas évident exemple ngeen ngeen gis talent ngeen gis seen doomu ndey ngeen gis seen frère seen dëkkandoo muy œuvre benn affaire ngeen gis ne am talent ngeen di ko pousser vers la réussite loolu c'est tellement difficile kon donc yéen mention spéciale à toute la team bi yëpp maa ngi koy jaare nak ci fàllu parce que dafa sonu ci boy bi boy fàllu bi dafa may wo téléphone kon a ki kii a 25 décembre rek amna manifestation buñ den dem foyer APEX euh, c'est le bon c'est le bëgg sama team bi mom mi dafa ma wo pour boy bi bëggoon fa ñëw mais malheureusement jàppandiwul tay bi ma woowee wax ma dogu solaa dem lu ma jàppoon dama kaa bàyyi ñëw fi kon donc damay xam ne rek amoo sen fay ñom kon ma ngi leen di ñaan foyer APEX man may président comité de gestion bi lepp lu ngeen fa soxla ak lepp lu ngeen fa bëgg wax leen mako ko ma jàppale booy bi pour mu egg fu mu bëgg jëm lépp lu ngeen bëgg organiser wax leen ñuko ñu défal leen sur les conditions yu baax ngeen ñëw defee ko parce que Tivaouane Peulh ak Cité Apix c'est la même chose ta boy bi dañu bëgg mu international boy bi wax bëgguñu ko yemale fi dañu bëgg mu international ta dara c'est pas des rêves si tu as un rêve tu dois le protéger car les incapables te diront que tu es incapable si vous avez même si vous avez cru quelque chose so gëmé ben mbir tu te bats point final parce que tay so amé rêve amna ñoo xamni amuñu gëm-gëm dañ naan non li mënul dem bu len deglu ñooñu gëm len seen rêve te ngeen protéger ko ki projet la projet la projet nak bu moy protéger bopam projet dafa am ñu koy protéger mom mënul dara lu e jéem a évoluer niveau mais yeen yeen a koy protéger bam egg fi mu bëgg jëm bu len deglu kenn ku naan len mënul nekk l'impossible n'existe pas c'est certaines personnes qui abandonnent avec le temps kon donc ma nga len wax ni bu len yemale seen bop fenn bu len yemale seen bop fenn gëm len ni vous devez vous devez accéder au sommet tay si yeen la dess ndax yalla nena soo xamee li nga bëgg xam li la koy may noppi nga yàlla maandu na yaa ci des soo xamee li nga bëgg xam li la koy may yàlla pare na si yow yaay góorlu yàlla yóbbu la fa nga jëm te boo xeebee sa bopp yàlla tuuti la boo ku la kenn gëmagul nag da gëm bu la kenn gëmagul da gëm sa bopp su la kenn gëmagul kenn xamagul la da ngay gëm sa bopp su yàggee ñëpp xam la. bisimilah. auzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim inna waliyallah ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant euh, di am kontaan yi ak mbégte bu baax a baax teew fii sincèrement on est très content bokk ci li nga xam ne carrément lañuy see boole di nuyu bu baax a baax sama frère Kona di rafetlu engagement am ak détermination au niveau de Tivaouane Peulh surtout zone bi nga xam ne carrément fa la dëkkee mu nekk zone APIX di nuyu sama rakk Boy Thier. donc sincèrement tey man bu ma fi ñëwee dama kontaan ndaxte xaaruma ko fi woon quoi sincèrement ndaxte peut-être maa ngi xaar leneen mais bu ma fi ñëwee tey gis naa organisation boo xam ni euh, tey am na ay artistes yoo xam ni tey de international internationale wala de national nationale amuñu organisation bi nga xam ni carrément moom lañ fi fekk donc vraiment staff bi donc dama leen di jaajëfal bu baax a baax di leen gërëm. di leen wax ni euh, tey kii nii tey toog muy Lamp Thier donc tey référence la au de Tivaouane Peulh ndax tey ku dégg mu woy tey sa day sedd te fépp fu mu mënti teew lu muy teewal lenn la muy Tivaouane Peulh te ndaw buy dem ci yoon ay ndaw ñoo ko mën a jàppale te bu ma gisee tey seen engagement ak seen détermination gën naa ni tey kii fépp fu mu egg. gëm naa ne yéen ñi nekk ci ginnaawam mën ngeen ko fa kon bu leen mësal doon yaafus gën leen seen bopp gën ni carrément Wally Seck mi nga xam ne carrément Sénégal yëpp lañ koy coow tey ba muy génn di way premier bi ku la waxoon day egg si fii da naan déedéet donc lii nii tey ngeen fi def mën na ko génne te yaakaar naa ni Caporal info mu c'est bon c'est le bége mu ngi fi euh, Dental TV mu ngi fi ñooñu rek. Euh, tey mu nañ ko porter pour mu dem feneen ndaxte tey nit ñi les réseaux sociaux donc tey dañuy dañuy dañuy dañuy jaay li nga xam ne carrément mooy nit ñi juste benn affaire bu ndaw ngay def rek nuuru àdduna donc lépp li nga xam ne carrément moom ngeen di def da ngeen koy seet ko seetaat lépp lu nekk loo xam ne lu positif la moo tax tànk sama fay wax na ko tey ñu nekk ci ginnaaw bu leen def lenn loo xam ne carrément dañ leen di xeebee donc lépp li nga xam ne tey war na mën a jëmale seen artiste kanam def leen ko. te yaakaar naa ni kii nekkul artiste boo xam ne carrément naqari naa jàppale. bokkoon na ci Oscar des vacances de Tivaouane Peulh donc gisoon nañ performance bi nga xam ne carrément defoon na ko fa te incha allahu rabbi avec un bon encadrement comme ni nga ko gisee nii euh, ndam rek lay am sincèrement en tant que le président du mouvement Tivaouane Peulh laa dëkk man nag sama frère Baye Diop ak ñaar donc dem nañ sànq sama frère Bourgué mu ngi nii yaakaar naa ni il fait partie du mouvement Tivaouane Peulh laa dëkk mais tamit jeune bu dem ci côté am da lay te ñun bis ni ki tey je vous lépp li nga xam ne carrément mën nañ ko si dinañ ko ci def te dinañ jël ay engagement au niveau de euh, ci ci ci tim bii nii te lépp ñu si mën incha allahu rabbi pare nañ pour def ko ci te dinañ ci dugal suñu loxo aussi tamit ba ñëpp xam ni carrément dugal nañ suñu loxo gaaw ñu wax nag tey sama teewaay fii c'était très difficile ma teew fi ndaxte am na ay programme yu bëri bëri bëri dañ ma ko ci invité mais damay dama du na nangu sax dem parce que avant am lu bëri boo xam ci li ñu jógee donc dañuy dañuy dañuy dañuy laqatu mais tey mënoon ma ñak ñew xam nga sall mo moo fi kon buma gisé ñu fekk fi nii donc je suis très content je suis très heureux bo déggé nu ma sax xam ne ma wax ma sax exemple exprimer li nga xam kay carrément mum la yëg ci ci ci xalé bi nga xam kay ma way na fi mi lamp ceer donc ma ngi lay ñaanal donc ndam yokuté bo fu ñu walik sek nek nga dépasser leen te lu wóor a mën la gëm gëm ci doomu aadama lay nek ki da ngay gëm dara mu leen ni carrément dinaa góor nga dox jëm ca def ci fulla def ci fayda détermination plein boo ko defee da ngay la ñëpp wax mais gëmal li nga gëm xam ni carrément lii nii dugguma ci pour foo pour caaxaan pour dara dama ci dugg pour réussir ñu nekk sa ginnaaw dañoo am fulla am fayda taxaw dina jàppale te yow mi nga xam ne yaa jiitu donc comportement boobu noonu nga mën a wane donc yaakaar naa ni lépp dina baax donc di leen ziaraat baax a baax di kontaan merci beaucoup à tout le monde ngeen jëf.